thank you billahi min alsheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wa salla allahu ala alnasiri jullit yi nga xam ne ñu ngi topp suñu jataay ci seen émission Shukran bi leen di defal ci dakar midi point net ñu ngi leen di nuyu fi ñu leen daan nuyoo di la ñëpp nag ci weeru koor bi di ñaan yàlla jaamu yàlla yi ñu ciy def mu néew mu bari yal ko yàlla nangu di ñaan yàlla mu nangul nu saraxi nangu sunu koor te nangul leen ko yàlla am na ko man na ko yàlla nañu ko yàlla defal ni ñu ko waxe woon sànq rek koor dafa ëmb ay matières yu bari waaye danañu ci situer rek ay thèmes yoo xam ne daañ leen ko jag daañ leen ko jagleel ci biir weeru koor wi ngir ñu mën cee jariñu kenn ku nekk mën cee jariñu ndax mooy la woykat ba di wax rek ne nasaxtukum qawmi lillahi nasihatan la yaqbaluha man laysa fi qalbihi kibru maa ngi leen di laaye biir laaye biir goo xam ne koo xam ne sa xol amul feebaru rëy di ko war a mën a accepter ndax xaala allahu xaala rasulullahi la euh, mu bokk nag ci yi nga xam ne dana yéegal bakkanu jullit pour mu mën a àgg ca kaw mooy il faut mu doon bakkan boo xam ne borom daf koy tàggat ci muñ muñ nag dañuy wax ni doo ne dama ko doon muñal fii laa mën a yem déedéet su boobaa tuddatul muñ muñandiku la tudd te yàlla wax na ci alquran ne inna allaha maa saabirina waaye waxul inna allaha maa saakirina yàlla def ne man yàlla maa ngi ànd ak ñi nga xam ne dañuy muñ waaye waxul ne maa ngi ànd ak ñi nga xam ne dañuy sant lu tax mooy boo comparé muñ ak sant dañu bokkul dimension li tax yàlla ànd ak kii muñ mooy kii muñ dafa wéet ca lam nekk waaye kii sant moom dafa nekk ci xéewal goo xam ne la ko wër xamul nu koy def moo tax mu dem ba lott ca muñ goo mu dem ba lott ca lam doon def sant far ko watte sant yàlla kon muñ ak sant bokkuñu ay garaat yàlla def na ci sant la in sakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la sadid doo nga ci mën a topp nag yàlla nee na su ngeen santee waat naa ne danaa leen dolli waaye su ngeen weddee na ngeen yëg ni sama mbugal lu tara la parce que dafa jaadu ndax kiñ defal te santoo duma rekk a ci jaadu waaye ki nga xam ni mi ngi ci jafe-jafe te muñ kooku moom yàlla day volonté wu ànd ak moom moo tax yu yonent yàlla Moussa alayhi salaam keroog ba ko firawna sëkkatalee ci baxru xalsuum gaa yi yuuxu ne ko inna la mudrakuun daf ne leen kallaa inna maaya rabbi sa yahdini gaa yi dañ ko yuuxu ne ko Moussa Firaw na dab nañu ñu ngi dee de boo yéexee wax musiba am waaye keroog yonent yàlla muusa daf ne leen yàlla di déedéet yàllaa ngi ànd ak man kon muñ gum muñoon ah, nangu gum nangu dogalu yàlla ci kawam moo tax yàlla ànd ak moom ca muñ googa ah, boo jàngee alquran sax da koy fekk ca biir yàlla wax ko yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko fasbir kama sabara ulul azmi min ar rusuli na muñ comme ni yonent yi ma fi jiitaloon mu muñee woon boo seetee ulul azmi yi juróom lañu euh, ulul azmi yi nag da nga cay jàpp yonent yàlla nuux da nga cay jàpp yonent yàlla ibrahima da nga ci jàpp yonent yàlla muusa da nga ci jàpp yonent yàlla isa da nga ci jàpp sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu juróomeel leen lu tax parce que ñoom fi ñu jaar ci seen épreuve ba réussir ko suñ muñul woon duñ fa àgg ndax boo seetee sunu maam moom yàlla dafa xëy jox ko aljanna julliwul woorul amul benn aqida bu mu def amul benn garanti bu mu joxe pour mën a dugg aljanna moo tax yàlla wax ko ci alxuraane ne wa laqad aahidna ila aadama min qablu fa nasiya walam najal lahu azma man dëlante woon naa ak seen maam aadama lu jiitu ngéen di ñëw dëkkal ko aljanna waaye volonté ba moo desoon moo tax mbokk yi muñ dafay tege ci ko volonte am na suñu benn maam bu baax bu ñu wax Cheikh Ahmad Dem as-Sukoni radiyallahu anhu nee na bana allahu lil axyaari baytan samaa'uhu humumun wa ahzaanun wa xitaanuhu durrun wa aglaqa baabahu wa qaala lahum miftaaxu baabukum as-sabru kon liñ ciy dégge mooy mag ñi li ñu am biñ koy am xaw nañoo dee euh, maam Cheikh Ahmad Dem radiyallahu anhu daf ne yàlla tabax na néeg boo xam ne néeg bi amul bunt toit bi ay njàqare la miir bi ay loraange la foo laal gaañu waaye nee na yàlla jël caabi ji sànni ko ci biir ni ku mën a muñ di nga ko daj néeg bu lëndëm kërës foo laal gaañu waaye liñ ciy dégg mooy nitu yàlla yi bi ñuy joggee ci ba bi ñu joggi dañoo muñ ba sonn doog caa àgg kon mbokk yi muñ am na solo lu ko nit jëndee rek des na euh, mbokk yi muñ wasbir ala ma asaabaka inna dalika min azmil umur boo demee ca luqmaan bi muy dénk doom ja sax wax na ko loola ni ko na nga muñ parce que muñ mooy njob baxtalu sàkku téefu li ngay jot li ngay sàkku kon mbokk yi ci muñ rek la nit ki mën a jaar ba jot li mu soxla moo tax yàlla jël ci turam ya mu jee ca as sabuuru muy muñaakoon bi yàlla xam na ne kenn du ko raw bu ko neexoon ku ko mooy du la fi bàyyi nga di fi diire benn temps bi ci tàng tàng bi la la fiy jële waaye ci mbaaxam ak kàttanam mu tuddee boppam as buuru moo tax mu féete woo di muñal jaam ñi mbokk yi nañuy muñalante waaye nag muñ du da def ku la cokkaas nga ne ko di nga xam ni gënoo ma dof gënoo maa mbaame wax dëgg yàlla doo mbaam nit nga alquran wax na la ko ne la wala tastawi alxasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa ida alladi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyun xamim waaye wa maa yulaqaha illa alladina sabaru wa maa yulaqaha illa du xadin azim moo tax mu dem ba ca biir ne wa imma yanzaxannaka min alcheytaani nazqun fastaiz billahi innahu huwa samiul alim alquran jàngal nañu fiñ mën a teg suñ tànk rek pour réussir épreuve boobu mooy lan mooy yàlla def nañu bu leen bu leen comparé jëf ju baax ak jëf ju bon jëf ju baax du yem ak jëf ju baax ba àddina di tukki mu ne nag njobbaxtalu li may joxe ci ay may ak i tànneef nee na ku muñul doo ci jot te muñ googu kat kenn mënu ko am lu dul ne gaa yu baax yi nga xam ne man yàlla xéewalee naa leen xolu muñ ñoom dong ñoo ko mën a am waaye nag nee na bu fekkee seytaane dafa jax jaxle sa digganteeg euh, ki nga ki la tooñ nee na bu boobaa na nga muslu yàlla ci seytaane parce que seytaane am na possibilité daw ci deretu nit comme ni deret di dawe ci moom te mbokk yi nag dañuy wax ne wa xamlul ada sanu rijaali fa sammiran fa fiihi lmaali wassanaa wa xuyuru képp ku daq dàq yanu loru jaam ñi kooku moo la ëpp cër ca yàlla fuuf ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu ko laajee ni ko ñen ñu ëpp ay nattu ci àddina yonent bi daf ne al anbiyaa ñu ëpp ay nattu ci àddina ñu laaj ko ne ko ñen ñoo ci topp mu ne fa saalixuuna ñu ne ko ñu ci topp mu ne fal am saalu kon képp ku baax rek na nga sédd sa bopp ci cëru natt yooyu yàlla di joxe yonent yàlla Zakariya euh, yàlla dafa dogal mu dugg ci pale bi ñu accusé ko viol dàqe ko mu daw génn bi mu génnee songu jardin bi bi mu songee jardin bi Iblis yàlla dogal ci ay pexeem am na benn garab gu mag gu fa nekk xam na ne Zakariya mënta raw mu ne ko kaay ma làq la mu daw dugg ci biir garab gi bi muy dugg iblis tey ci catu mbub mi gaa yi di ko wër ko ba sonn gisuñu ko iblis ne leen mi ngi ci biir garab gi làqu ñu ne ko nit nu mën a dugge ci biir garab gi mu ne leen catu mbub maa ngi nii ñu ne ko lu ciy pexe mu ne su ngeen ko xaree gisuleen ko ngeen rey ma laanatullaahi alayhi yàlla dogal ñu dem jëli benn si jël si bi teg ko ci kaw garab gi di xoos di xoos ba agsi ci yuur gi bi ñu egsee ci yuur gi mu ne uh bi mu uh, yàlla ne ko xanaa waxoo xanaa waxoo ne maay sa borom mu ne ko ah kay mu ne ko bi ngay làqu ci garab gi xanaa nekkuma fi mu ne ko ah kay yàlla ne ko duma la fayee dara lu dul da muñ soo muñul ma raaf surtout ci diwaanul anbiya yi kon mbokk yi muñ am na solo boo seetee yonent yu baax yi fi ñu jaar fépp ba réussir seen épreuve dañu muñ ndax suñ muñul woon mu ko am yonent yàlla isa alayhi salaam da ngay seet fi mu jaar di woote li muy woote nangami fan wala nangami at ndax bi mu juddoo la daawaam commencé ndax keroog ba mu juddoo la ne leen inni abdullahi ataani alkitaaba wa jaalani nabiyan wa jaalani mubarakan aynama kuntu wa awsaani bilsalati walzakat ma dumtu hayyan wa barran bi walidati walam yaj'alni jabbaran saqiya wassalaamu alayya yowma wulidtu wa yowma amuutu wa yowma ab'asu hayya dalika isa bnu mariama qawlul haq ah mbokk yi sayidina isa keroog bi mu juddoo ci la daawaam commencé ci la leen man jaamu yàlla laa duma yàlla ñi ngeen may tuumaal doonuma ko jaam laa boo xam ne bu set wecc laa yàllaa may yónni ne ma naa baax ci sama ñaari wayjur naa baax ci mbooleem ñi may jëflanteeg bi ci desit yàlla jox na ma téere ne ma naa ko topp képp ku ma gëm na nga topp téere boobu kon ya jàmm yàlla na nekk ci man bis bi ma juddoo jàmm yàlla na nekk ci man bis bi may faatu jàmm yàlla na nekk ci man bis bi may dekk mbokk yi kon loolu mooy seen buntu tey bu ñu leen indiloon ci muñ muñ di passage boo xam ne ku ci jaar ku ne li yàlla joxe di nga ko téye inchaa allahu taala kon yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp loolu moo doon seen jataay ci chuk émission shukran ci dakar midi point net wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu